te dangaa ragal ngay dem nga bay ba 6 heures 30 minutes bu fekkee njàqar dañu na nga door a tàmbalee julli waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu moo tax kuy tukki mbaa koy seet ndox wala yooyu ku ci nekk may nañ la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taqir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam mi di julli tàkkusaan bu fekkee da nga ragal kon su boobaa fu mu jublu sa xibla boo ragalul nag dangay ngay wàcc julli ba noppi door a waral fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla da ko tuddee julli la wax rek fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tuddee ko zikrullahi aqimi salaata li zikri la waxoon yoon ci yàlla Muusa hmm? aqimi salaata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudiya li salaati min yawmil jumaa fasaw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli ga kon fii faskurullah mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale ma lam takunu ba nga xamee ne da ngeen nekkoon nekku leen woon taalamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sàppe julli mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaat yooyee wala si góor ñi nga xam ne yu tawafaw na dañuy faatu <laughs> ni ma ko waxoon léegi minkum te bokk ci yéen góor ñi jullit yi wa yazaruuna ñu bàyyi seen ginnaaw azwaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li azwaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba miraas amagut balaa kenn dee booba dangay bind aw kayit ne sama soxna si bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yóbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki ñaar bu mu génn kër gi wallaay ndeysaan di leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon bi miraas mi ñëwee nag lii daa dañ su léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun yu céem bu fekkee amul doom waa ji amul doom su léegi day jël rubu kaaru alal ji lay jël daal di ñibbi léegi sii nag tubaab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu miiras ko ba noppi jigéen ji continuer di am lu muy amaat rek di wéy xawma passion xawma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee bañ miraas la ba noppi sa jabar tënji la ba noppi amatu ci sa alal dara lum ca lekkati àq la ju muy lekk seet leen ko bu baax nag yéen ñi xam ne <coughs> ah, buñ génnalee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu toogee mu génne boppam fala junaha aleykum yéen amu leen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii na ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga waa bàyyil ko fi lu mu fukki at fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko ah, mbokk yi ne ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënoon ci moom mooy mu toog tabarkalla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yelleku ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fenn di sëy sa jëkkër faatu nga yenu say bagage ca tooy tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay àtte la waaw kotam bii tabarkàlla ñépp la arrangé <laughs> code de la famille bu yàlla ñépp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarkàlla aziz ku teddal nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexe te bu neexee mu ne maa tey loolu mooy aziz waaye du ko def ndax ku njëram la moom yàlla walil mutallaqaati jigéen ñu ñu fase am nañu ñoom tam mataaun yóbbal bil maaruf it njëkk bépp jigéen bu ñu fase war nañ laa wutali yóbbal paas bu la yóbbu yére yoo sol ak yu demee nekk yooyu xaqan lii nag droit bu ñu teg alal muttaqina ci képp ko am ak yàlla képp ko am ak ragal yàlla lii lañ la teg moo tax soo fasee fase bu njëkk wi boo soxlaatee boo demee ñu joxaat la ndaw si ndaw si booy bëggaat muy ñëwaat waaye am na fexeeti fase yoo xam ne boo ko defee soo bëggaatee doo jot dara wallaay ndeysaan kazalika nii nag yu bayinu llahu li yàlla leerale lakum ñee leen ayaatihi aayaam yi laallakum xay na te na ngeen jëfandikoo seen xel te xam ne lii moo baax ci yéen leneen lu tër nu dul yàlla tëral loolee baaxul ci yéen wallaay ndeysaan alam muy wone nag ña nga xam ne dañoo weddi yàlla tëral bu leen tëralee duñ ca jaar mu ne alam tara xanaa gisoo ila lazina ci ñii nga xam ne xoraju génn nañu min diyaarihim jóge seeni kër waxum te ñoom ba ñuy génn seeni kër ulufun ay junni lañu ba ñuy génn seen kër waaw li leen tax a génn seen kër xasaral mawti daw dee xasaral mawti daw dee <laughs> réew ma am guerre ñu takk seeni bagage dem ci beneen dëkk ay daw làqu si ngeen ni mu xewe léegi mu lay ndeysaan ay daw làqu fa qaala lahum yàlla ne leen fa qaala lahum allahu yàlla ne leen muutoo dee leen ñu daal dee ci yoon wa ñoom ñëpp <laughs> wallaay ndeysaan di daw dee far yàlla leen accu ñoom ñëpp wallaay bàyyi leen ab diir summa ginnaaw ga ahyaahum mu dekkalaat leen ñoom ñépp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu la nit def lu nit dee def dee am na ku ko def mu jig ko lu nit def dee am na ku ko def mu jig ko fetal nañ nit mu dee fetal nañ nit deewul nit xaru dee gis naa ko xaw ci fan yi ndeysaan déewut ma nga ñuy faj <laughs> boo moytuwul du taxar mukk <laughs> wallaay ndeysaan wallaay dee kon jarul daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee mi ngay daw ma nga la kar kon bi ngay yokk vitesse yaa ngi koy dimbale yaa ngi koy dimbale waaye def ne def ne jibril yóbbu ma ma seeti weer wi jibril ne ko bu ma sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñoxeet waa ji ne ko cëpp foofee malakal mawti daa ne ko waaw kii du suleyman mu ne ah kay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla def ne woon fii laa lay reye te tey laa la rey te xamoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne jibril duñ dellu <laughs> jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal de seetetet <laughs> ndeysaan mu ne ko man tàgguma woon tàgguma ay da sax mu ne ah, yaa de <laughs> yàlla nee na kon dee jur daw wallaay ndeysaan muutu rek ñu nee summa ahyaahum mu dekkalaat leen inna allaha yàlla la soo fadlin boroom ak mbaax la alal naas ci nit ñi walakin akthara naasi waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant est-ce que li ëpp ci nit ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatilu xare leen wa qaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalamu te ngeen xam ne anna allaha yàlla samiun aji xam aji dégg la aji dégg la waaye alim aji xam la lu xeex bi bari bari ña koy xeexal ak seen bopp fi sabilillah xeex bi bari bari bari yàlla xam na ña koy xeexal ak ñay xeexal seen bopp ah alam tara déedéet man zal yàlla mu ne man zal lazi ana kan mooy ki nga xam ne yuqridu llaah dana lebal yàlla xardan bor xasana bu rafet yàlla mu ne kuy lebal yàlla bor bor bu rafet mooy fu yàlla waxee xare day wax alal ci wet ga ndax ñoom ñaar la bakkan ak alal te ñiy defal yàlla di xare ji ñaara duñ jekku seen bopp yàlla bëgg ñooñee ñu jox leen alal ju ñu mën a waajale soldaar saak ya ci aju yépp moo tax kero ba mu lebee lii ba yàlla lebee tàllal loxo ne man zal la nga xam ne yuqridu llaha day lebal yàlla xardan bor xasana bu rafet fa yudaa'ifahu yàlla fulandeel ko multiplier ko lim ko jox adaafan kathira fulande gu bari maanaam bu waaji lebele yàlla benn dërëm mu fay ko euh, juróom-ñeent Ousmane daal dem këram daal dafay jiitale ñetti téeméeri gëléem daal di ñëw ci marché bi bëgg koo jaay gaa yi ne ko loo jënde mu ne dërëm ñu ne ko tegal ñaar dërëm mu ne gis naa lu ëpp loolu tegal nañ la ñett mu ne gis naa lu ëpp loolu juróom mu ne gis naa lépp loolu gaa yi dem ba juróom-benn ñu ne fii lañ mën mu ne ki ma koy jaay juróom-ñeent la may tegal ñu ne ko demal jaay ko mu indi ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ñetti téeméer gëléem naa ko yàlla ci lii muy leb nii allahu akbar yonent bi bañ ne asalaatu xayrun mina mu woo Ousmane mu ñëw mu ne ko Ousmane mu ne mu ne ko dama laa fanaanee ñaanal. mënatoo def yàlla lu ko naqari ba baa ngay dee doo fi defat yàlla lu ko naqari laa ilaha illa ay waay loolu moo ko amoon <laughs> ah mu ne ko mënatoo def yàlla lu ko naqari yaa Ousmane maa darra Ousmane amalun baada al yawm wallaay ndeysaan te teewlu Ousmane bu gisee ay xabar day jooy dafa bokk ci al asharatul mubashara bil janna yun ti waxaat ko lii muy ñaari affaire teewul bu gisee xabaru jooy fa ba dañ koy dañ koy yëkkati ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm wallahu yàlla yaqbidu mooy xomp wërsëgu ku ko neex wa yabsutu mooy yaatal wërsëgu ku ko neex baat boobu subi dañ ciy def ak siin gu ndaw def ci sood moo tax boo ne yeb sutu baax na boo ne yebu sutu baax na su walla su boo ci wax baax na wa ilayhi turjauna yéen ñépp ci yàlla leen delloo ñi bari le ci yàlla lañuy dellu ñu néew le ci yàlla la ñuy dellu te ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla waaw bu ñu xasee sàng ba tëral xanaa ñu ne la kii diwa waaye doo ko xam wallaay ndeysaan bu ñu xasee tëral moom te kenn waxu la kii gum doon même dangay wax góor la jigéen néew bi góor la jigéen ñu ne nga ñu ne góor la nga ne allahumma ixfir lahu ñu ne góor laam jigéen ñu ne jigéen la nga ne allahumma yaxfir laha waaye bu la ko doo ko xam góor la jigéen ñu ne eh, suñu ustaas bi la <laughs> ndeysaan rek yàlla na yéex <laughs> yàlla mu ne alam tara ilal malai min bani israil noonu la de loolu mooy geeru Goliath ak David moom la yàlla ay nettali David ak Goliath <laughs> di ko nettali nag ci nettalin bu doy waar ci wàllu koor dafa am lu naqari réew mi di banu Israël ñu kaas ko ci kanam seen yonent yonent bu jóg pour bëgg koo faj loolu yàlla yi nettali alam xanaa gisoo ilal mala yi ca assemblée ba al mala u ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tey jii mbooloo mi sañ wax ci réew mi mu doon mooy assemblée nationale ba xaalal malaw xaalal malaw rek ngay dégg alam tara ilal malai assemblée ba min bani israil ca doomi yaqub ya min baadi muusa ginnaaw ba muusa demee te isa ñëwagut assemblée ba dañoo dajee isqaalu kero dañuy wax ne li nabiyin lahum seen yonent ba daawuda ñu ne ko ibaas lana malikan wutal ñu ku jiite xeex bi xaw ma général ngeen koy xaw ma ab général wutal ñu ko mu ne waaw lu ngeen lu ngeen koy de ñu ne nuqaatil fi sabilillah dañoo bëgg xeex ci yoonu yàlla <laughs> Daouda daal di am affaire assemblée nationale dañoo bëgg xeex ci yoonu yàlla lu ngeen wax gaa waxaat ko ndaxte ñaare borom ndomba tànk borom ndomba tànk jikki-jikki jóg rek jóg ci daaw bi affaire bi jaaxal ko lool <laughs> mu ne gaa lu ngeen wax ñu ne ko waaw waaw nu xaatil fi sabilillah xaala daaw dana xe hal xasayt hal xasaytum mu ndax yaakaaru leen in kutiba alaykum alxitaalu buñ farataalee ci yéen xeex allah tuqaatiloo ngeen di bañ a xeex yéen ni ngeen mën a ndox mu sedd ni ngeen mën a climatiseur ni ngeen mën a lekk xaal ah ah <laughs> da nga war de xaalu gaay na ko i eh, wa maa la naa la wa maa la naa lan moo ñuy jot allah nu qaatila fi sabilillah ba ñu bañ a xeex ci yoonu yàlla waaw question bu doy waar la leen posé waaye gaa yi ne ko lu tax duñ xeex te ñu ngi ñuy def lu jar xeex lu leen def mu ne ma xadd uxrijna min diyaarina xañ nañ ñu suñ kër yi waa wa abnaina xañ ñu suñu doom yi waaye war nañoo xeex kay daawul naa waaw lii de moom jom dëgg la lii de jom dëgg la dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ah war ngaa jóg jóg jot na nag wallaay ndeysaan seetet <laughs> mi ngi mel ni tey ndeysaan toog jot na daal di ñaan borom tabaraka taala ne ko ah dëkk bi dey wax nañ ma lii wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonent bi daal ñëw ne leen fa lamma kutiba alayhim wala boog yàlla di nettali fa lamma kutiba alayhim bu ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bank baaram nga bind benn xalil dëkk ñépp a daw illa minhum ba mu des tuuti bu dee juróom-ñaari million kañ la ñuy wax tuutee ci des wala juróom-ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañuy wax xaaj bi kon foog nga ne cinq millions yi ñoom daw nañ juróom-ñetti million léegi cinq yi daw nañ trois millions moo des diggante assemblée beeg peuple bi wallaahu yàlla alimun ku xam le bi zalimina ci tooñkat yi te ñii ay tooñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique <laughs> tax nañ maa wàcc sama logique waaye yàlla daa am logique bi muy jaar ku ko tax a mu alag la yàlla bu yónnee yónnante day wax ne gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemtaan wane ay yet wane ay jaan gis bi mu wàccee logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen tooñkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qaala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yàlla qad baata lakum yebalal na leen taaluuta taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaa yi nañ des na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal 3 millions yi 3 millions yi xaalu ñu ne ko Daawuda la wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakunu lahul mulk naka lay nekke suñuy général wa nahnu axaqu bil mulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñu waroon a tàgg ñu tànnal suñ bopp mais bu mu ñu tànnal daaw dina seet tët tët yéen yéen a compliqué waaw lu ñu waxoon daaw de léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo war na bàyyi ñu wutal suñu bopp ah allahu akbar ñu ne wa nahnu ahaqu bil mulki ñoo ko ci gën a yey minhu ci moom ñu ne benn walam yu'ta te kenn joxul taaluta tamit saatan min al maliyaat waaye ci alal moom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaalis éé eh, eh. ndeysaan jàpp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sinon waroon nekk njiit wallaay ndeysaan moo tax fi ne bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ jàkka ji day fee chaque jour waaw bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ ku sëlmal ne ko mbàkke mbaa nga ne ko si day fees rek te kenn du dee ko ne te kenn du dee ko ne comme ne kaay fii rek nga ñëw bu toogee fii bu laajee rek fii fees <laughs> wallaay ndeysaan waaye fi ilimaan ilimaan ndaw léeg-léeg nit ñëw def ci jàkk ji loo xam ne lii kenn du ko mas a gis wallaay ndeysaan c'est tout ah moo tax ci jamono yi maam Cheikh El Hadj su ma saana jàngal nit ba noppi daf lay affecté fenn nga nekk fa ilimaan mooy ñëw samp la moo tax moo samp Ahmed Cissé fii ci biir samp alaaji rawaan ngom ca paal ah di samp rek ñooñu mës samp nag naka jekk bu ñu mësaan nekk affaire naan dégg doo dégg ñol ñol ci jàkk benn misaal jàkka yi ñaari jàkka yi benn tali léeg-léeg ngeen jullee ilimaan jooj ñu jëlee fële indi ko samp ko fii fi nekk ni jàkk ji naan dégg kenn ñëw faa wax di da ko ne mais su jàkk yi léeg-léeg dañuy jàpp ne ilimaan ilimaan rek léeg-léeg nga jóg rek ilimaan asalaamaaleykum au lieu nga non moo tax lu doy waar ngi nii te lu am solo la mais malheureusement gaa du waxuma nekk ilimaan waaye jàkk ji tubaarkalla <laughs> yàlla daawuda di tontu xaala mu ne inna allaha astafaahu aleykum yàllaa ko tànn aleykum ci seen biir wa zaadahu te dolli ko ñaar dolli na ko ñaar yi nga xam ne moom la ab général di soxla wa zaadahu mu dolli ko bastatan ak yaatu fil ilmi ci xam-xam wal jismi ak physique ñaar yii la kuy jiite xeex di soxla xam-xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarteeg jiitu waaye alal alal <laughs> ku bëgg ku bëri ku bëri alal ñaare léeg-léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw bu ko defee ñi bëgg ci alal ji di des des lu ginnaaw bañ ko raw naan ko dawal rek te te te kon ñaar ñi la ko yàlla jox al ilm wal jism wallahu yàlla yuti mooy jox nag mulkahu nguuram mu yashaawu ku ko neex te kii la ko jox wallahu te yàlla waasiun ku yaatu la alim ko xam la ñu naa ah, ñun d'accord ñu daal léegi daal kon nañ fa mu xeex bi am na lu ñu naqar lool nag da nga ñu war na bàyyi ñu tànn suñu bopp daaw de léegi kii kon na leen won lu leen won ne yàllaa ko yó yàllaa ko tànn ñu ne acca wa qaala lahum nabiyuhum seen yonente ba daawuda ne leen inna aayata mulkihi ga mi wane ne yàllaa ko yebal mu nekk ki leen war a jiit xeex bi an yatiyakum mooy def leen di dikkal ci fan yii ak taabuutu kees ga kees ga bu ñu nee kees ga mooy kees ga daa am am mbir mooy ba fi Moussa di jógee ba ñu boolee dossier yàgg yépp kees gañ ko defoon dafa réeroon mu ne attaabootu kees ga fii yi nekk na ci kees googa sakiinatun ak dal ak dal loola bu ñu ko jàngee rek xam ne affaire yi doxe min rabbikum ci seen boroom lay jóge wa baqiyatun am na ca it aw des mimma taraka ci lim fi bàyyi woon alu Moussa mbokki Moussa ya wa aalu ak mbokki haarun ya kees gi buy ñëw taxmiluhu daf koy ŋàbb al malaikatu malaaka yi mun leen inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan mandarga lakum ñeel leen in kuntum mu'minin bu ngeen dee gëm war ngeen a gëm ne moom la yàlla tànn ngeen ànd ak moom xeexi ah? am ñu ne ko ah, ay la yoon wax nga dëgg de kon nag nañ dem waaye <laughs> xeex ñu ne kon boog nañ dem duxut duxut de ñàkk pexe bu gisee lu mu xam nu muy def dëpp waaw moo tax boo toogee sa doom ñoo ne papa yónni ma ne ko xaaral ma yónni gàllaay <laughs> papa yónni ma affaire la waaw ñii tam ñu ne ah kon boog nañ dem. ñu daal di waaj Daawuda dugg néegam di summiku yàlla wax yu ko waaw ne ko xam nga trois millions nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bëri naafiq il faut nga segg leen seet Daawuda ne suñu borom nga ne mu ne maa la ko wax xam nga xalil nga dese mbooloo ñaata million ñoo fa des cinq ci misaal cinq mu ne mu ne ko gis nga sa trois yi naafiq yaa ngi ci ne kur ni ngay def pour xàmmee leen mu ne mu ne da ngay wax da wax ci ñoom koor koor benn bis ci ngay xàmmee naafiq yi comme <laughs> kooru tey <laughs> bi koor gi ñëw ñun ñëpp ay jullit lañ bi koor gi ñëwee damaa feebar damaa jabet ah walaay ndeysaan damaa am hypertension dama am ulcère chet tet tet ñu tuuta woor